Cheikh Bass Abdoul Khadre nee mi ngi nuyu ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye di nuyu ministre Augustin Tine di directeur de cabinet président la République di nuyu ministre Mor di ministre conseil boole kilifa yi nga xam ne ñëpp ànd nañ ci ak délégation boobu di gunge si Aly Ngouille Ndiaye ñoom ñu ñëw fi ci turu njiit réew mi président de la République Macky Sall. ndax xam ne nekku fi ñoom ñu ñëw teewal si ko ci bis bi kon nag sëriñ bi nee na liñ ciy seere rek sëriñ bi nee na li ko yëkkati nee na leen rek la mooy santale sëriñ Touba boroomam ak sant sëriñ Touba ci bis bi ndax fàttaliku ñaari guddi ndakaaru ya nee na loolu moo ko yëkkati Mbàkke ak joxe farata bis bi. ak joxe farata bis bi. dara dolli ko ci. dara dolli ko yëg-yëg boobu rek. nekk ci moom la ñëpp yëg ko. nekk ci moom moom la bëgg jullit yëpp yëg ko. te dara bañ caa dolli ko. liggéey bi itam. sëriñ moom dara da ko cee génnut. sëriñ bi moom dara da ko cee génnut. ndax 2006 ba sëriñ Saliou di teg xeeru njëkk ba. ndax 2006 bi sëriñ Saliou Mbacke mu baax ma di teg première pierre ba. moom la ci yebaloon. moom mii jëmm ju tedd ji la ci yebaloon. bi nga xamee ne Mouhamadou Lamine Bara xalif général des Mourides mi ngi koy tàmbali ci pàkk bu njëkk bi ñoo ko àndoon ñoom ñaar ñooñu ñoo ko àndoon ba Cheikh Sidi Mokhtar ñëwee rek sëriñ bi nee na ba Cheikh Sidi Mokhtar ñëwee teg lépp ci loxoom teg lépp ci loxoom liggéey bi sottee tey kon ak cant rek moo ciy war